bisimilah bu dee laaju mbokk mi mu ne daa am ku bëgg a takk soxna ñu ne ko soxna si ngay labat bëgg koo takk ab jaam la te ab jaam bala nga ko mën a takk faaw nga goreel ko loolu du wax ju mat a dégg sax du wax ju am solo kon ne ko wax jooju du wax ju rafet benn ndax ñun ñëpp ay bu dee jaam jaame yàlla la ñun ñëpp ana ku nekkul jaam amut sëñ Tuubaa radiyallahu anhu benn waay mas na ko andil kenn ne ko kii sama jaam la sëñ Tuubaa ko bu fekkee yaa moom bu dee li nga wax dëgg la kon de yaa moomaale ndax ñoo bokk borom maak moom muy kan muy suñ borom subhaanahu wa taala jamono ya doon am nag lu mel noonu amoon na te sax loola du woon te sax même jamono yee jaam daan am sax boo bëggee boo bëggee takk ab jaam doo ko goreel da koy takk rek kon wax jooju ñooñu wax du wax wax ju wax ju mata maanaam daal ñooñu ñu ñu xamul ñu xamul lañ dëgër fit di wax li xew ci jamono. xamoo ba noppi dëgër fit di wax wax ji wérut même bu fekkoon ne sax jamonoy jaam am na xam nga nekkul ci jamonoy jaam benn loolu ñu tuumaal ndaw si ab jaam la wérut du wax ju wér loolu waxu wax ju bon rek la ni ki yenn xeet yi léeg-léeg ñaan diw ñoom diw ay jaam lañu war lañ ci mooy ñoom seen maam dañ leen mas a jàpp jaam loolu lislaam bàyyiwu ko xel kon loolu wax ju ñaaw la wax ju bon la ñaareel bi nag mooy li ñu wax ne amut même bu doon ab jaamit doo ko goreel doo koy takk da nga koy takk noonu rek wallahu taala alamu sawaaba bu fekkoon ne borom jaam bi nag la kii moomoon jaam bi ci jamonoy jaam daa am xam nga ñu nekkuñ ci nee naa la wax ju bon la wax ju ñaaw la waaye jamonoy jaam daan am bu fekkee yow yaa moom jaam bi ko jërul nga di ko takk ndax mën nga caa bànneexu incha allahu rabbi bu fekkee moomoo jaam bi rek mën nga koo takk bu fekkee borom jaam nangu na la koo may soxna wallahu a'lam bismillah bu dee laaj bi ci mbokk mi di leerlu koo xam ne du julli ji ca jàkka ja dëgg la mën naa julli ca jàkka ja waaye daal day toog këram organise njabootam xëy na jiite leen loolu muy def lu baax la waaye julli ca jàkka ja moo ko gën loolu muy def lu baax la kon bu fexe woon ba tabarkàlla jigéen ñi bu fekkee mën nañoo jullil seen bopp ñu dugg seen néeg julli ku kenn ku nekk walla boo bu fekkee mënuñoo julli mu bàyyi fa genn gone gu góor doomam ju góor wala dara mu jiite leen julli moom mu dem jàkka ja julli ji ndax bu fekkee ne jàkka yi dañ koo tabax kenn ku nekk toog sa kër ne man sama njaboot laay defar kon jàkka ja kenn du fa nekk te julli ji ca jàkka ja ci ku ko man am na ci waroom xam-xam yi ñoo xam ne waajib lañ ko def maanaam daal boo ko defut am na sax ñu ne boo déggee jàkka ja man faa dem julli te julli ji woofa boo jullee sa kër doo am julli dëgg la nag ne loolu wax ju xaw a diis la li gën a wér du loolu ci li ñuy sukkandikoo bu dee ci yoonu Malik yoon al imam Maalik julli ca ca jàkk ja sunna mu akkada la sunna waajiba sunna la soo xam ne su dëgër la boo ko defee bari na tuyaaba lool yonent bi sallallahu alayhi daana soññee bu baax ci julli ji ca jàkk ànd ak loolu lépp nag moom taxut nag boo jullee sa kër doo am julli déedéet loola wérut wa ala kulli xaal moom moom yi bu fekkee ne am na ñeneen ñu mën a taxawu jigéen ña wala jigéen ña mën a julli seen bopp na leen fa bàyyi dem jàkka ja dem julli ji loolu mooy lañ ko sant bu dee ñaari laaj bi mbokk mi laaj natt boo xam ne dañuy leblente seen biir waaye ña bokk ca natt ba rek la lebal waaye kuñ lebal ñaari junne dañ naan da nga teg ñaari téeméer loola xaraam na mën nañoo yemale foofa laaj bi moo xam nag buñ noppee dañ koy séddoo seen biir dañ lay defal nangam dañ la koy delloo bu fekkee dañ la koy delloo luñ la ciy laaj loola xel nanguwu ko maanaam yaa ma lebal dix mille ne ma booy fay da ngay fay onze mille danga nga ciy teg ñaari da nga teg euh, maanaam ñaari téeméer ma fay la ñaari téeméer nga jël ñaari téeméer dellowaan ma ko loolu kon loo ci doon jël loolu xel nanguwu ko waxalaa kulli xaal heure boo xamee ne ñoom ñi ngi jël xaalis di ko lebal kenn moo xam bokk na ci natt bi wala bokk ci te buñ koy lebal dañuy sartanteeg moom ne ko booy fay da nga yokk ab dërëm sax kooku riba la incha allah wallahu taala alam bismillah bu dee laaju mbokk mu baax mi mu ne aqi jëkkër ci jabaram ak aqi jabar ci jëkkëram mooy lan lool nag day gudd lool dama lay jox benn takk-takk kenn ku nekk sa àq ci sa moroom mooy da ngay xool loo xam ne bëggoo ku la ko def boo ko def sa moroom loo xam ne bëgg nga ku la ko defal nga di ko defal sa moroom loolu mooy takk-takk bi xam nga boo ko bëggee lim nag day def nii da def nii loolu day bari ku nekk xam nga jabar xam na àqam kenn kenn réeréwu ko ku nekk xam nga ko sa jëkkër mooy toppatoo ko defal ko euh, li nga ko war a defal lépp yow it sa àq jabar dundal ko dëkkal ko defal ko li ko war a defal loolu moom ñëpp xam nañ ko waaye ci gàttal lépp loo xam ne tey jii sa doom ju jigéen ja nga maye boo amee doom ju jigéen wala boo ko amul nga xalaat ne su ma amoon doom ju jigéen bëgg naa ñu defal jëkkëram nekk ak moom nii nga nekk kook sa soxna lépp loo xam ne bañ nga sa doom jigéen bu sëyu ñu def ko nga ne bu ñëwoon nettalee ne man sama bóor may dóor damay def nangam wala du ma lii nga mer bu ko def sa soxna soxna si tamit na xool lu mel noona xool moom bu amoon doom wala baayam bu amoon bu amoon soxna wala rakkam ju góor bu amee jabar lépp loo xam ne bu ko soxna soosee defee mag ja mu metti ko mu xam ne waruma ko def sama borom kër bii wallahu aalam bisimilah mu dee ñaareel laaj mbokk mi mu ne ku am soxna bàyyi ko ginnaaw dem tukki ndax danga koy ameel xaq waaw bu fekkee yàgg na yaa ngi koy ameel xaq su boobaa nag la ca war kon mooy wax di waxtaan ak moom di ko xamal ne ko ah, man de xam naa ne li jaadu woon te yàlla santaane ko mooy ma dëkkoo la nekk yow di la wéttal ba nga mën a jot sa xaq ji yàlla samp ci man ji yàlla ji suñu boroom gàll ci man waaye loole mënuma ko ndax lii ak lii ak lii ah damaa bëgg rek ngeen am lu ngeen dund damaa bëgg rek nang damaa bëgg nang maa ngi la koy baalu xaq su ko defee soxna si baal la ko xaq am maa toog noonu mën a ñëw ñëwoo di xaar ay nangam dégg nga di topp ay mbiri adduna ba bàyyi sa soxna te doo ko woo di ko baalu xaq loolu àq ju rëy la wallahu aalam bismillah bu dee laaju mbokk mu baax mi nee na kuy jàng français jàng ci école yi waxtu julli jot fekk ngay def cours nooy def ah suñ borom de lim la sant mooy loo mën a nekk bu julli jotee bàyyi ko demal julli ci ah la ca des nag mooy nit ki mooy xool commerçant yi dañuy bàyyi seen marchandise mi ak lépp dem julli ci kiy jàng na bàyyi njàng ma dem julli ci kay liggéey di mason na bàyyi mason ba dem julli bu jullee ba noppi ma doo ko àggale dëgg la nag ne. ci jamono joo xam ne seytaane dafa not nga xam ne nit ñi bu ñuy def duñ ci bàyyi xel yàlla maanaam ki ki tëral programme njàng mi bi mu koy tëral moom bàyyiwu ci xel yàlla te yoonam nekku ci loolu bokk na ci natt yu mag yi ñu am incha allah kon xëy na donga bi élève bi bu fekkee ne lu mel ne waxtu tisbaar la nga xam ne xaw naa yaatu moom loola mën na ko bañ a lor ndax bu jàngee daanaka bala moo jàng ñaari waxtu wala nangam ñu génn buñ génnee mën naa julli incha allah sant jullit mooy loo mën a def bu julli jotee bàyyi ko demal julli ji wallahu aalam bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai walmursalin nabiyina muhammadin almakin wa ala alihi altahirin altayibina ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin bismillah ñu fas yéene dimbali ko sunu borom subhanahu wa taala ci jéema tontu laaji fi jotorot di tàmbalee ci subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimu alhakim mu dee laaj bi nga xam ne moo ci jiitu mbokk mi laaj imaam joo xam ne da doon jiite mu bàyyi taayay digg ba mu ba jug taxaw ñu sàbbaal ko mu dellu si toog taaya ba julli ga jeexee mu sujoot baada salaam mu ne nag daa mbokk yoo xam ne dañ wax ne moom warutoon na dellu di toog ah, dëgg la imaam ji warutoon na dellu siwaat di toog daa waroon a continuer rek jërutoon muy dellu buñ ko sàbbaalee daa war na continuer waaye nag maamum yi xëy na ñoo ko jaxase ndax fii ne loolu daa nekk point boo xam ne lu point bu xaw a jafe la ci imaam léeg-léeg day xam lim xam xam ne moom mii dëgg la sax bàyyi na bàyyi na taaya waaye warut delluwaat waaye teewut maamum yi dañ koy nekk di ko sàbbaal di ko sàbbaal ba nga ne mën naa am bu continuer sax ñoom mën nañ ko bañ a topp seen julli yàqu maanaam léeg-léeg maamum day juum day def dara defe ne moo nekk ci dëgg fekk ca dëgg-dëgg nekkul ci dëgg imaam bu bàyyee taaya bu xasee ba jug taxaw rek bëgguñu muy delluwaat di toog dañoo bëgg mu continuer julli gi bàyyi taaya ja bu noppee mu def ba mu def xabla salaam waaye léeg-léeg nag xam nga maamum du xame du xamee noona day defee ne rek dangaa ngaa juum bàyyee nga taaya mën naa toog di la sàbbaal ba imaam ja rukkoo te bu imaam xasee ba rukkoo jullee mën naa yàqu wala mu perte ab rakka waaye daal imaam ji jërutoon muy dellusiwaat mënoon naa continuer wa ànd ak loolu lépp nag julli gi dara nekku ci julli gu wér la incha allahu rabbi euh, noonu mu def rek noonu la muy sujjóot ba'da salaam wallahu a'lam bisimilah waaleykum salaam mbokk mi ab laajam mu daal daa ñu ne xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom rek ñoom rek la yàlla may bu ñuy baalu xaq nit dañuy yem rek ne ko baal ma xaq te duñ tudd lañ ko defoon waaye yeneen xeet yi moom faaw dañ lay leeral faaw dañ lay leeral da ngaa war a leeral ki ngay baalu xaq li ko def loolo waram xam-xam yi wax nañ ko. loolu waroom xam-xam nañ ko man nag taxul ma am ci lu leer wala ma jàngagoon benn téere ñu ne xëy du njëkkee faaw da wax nit ne ko dama njaal wala maa def nangam waaye daal dégg nañ ci ay borom xam yoo xam ne euh, tabarkàlla ñu ñuy sukkandikoo seen wax lañ waxuma borom xam yi bind téere nag ndax nee liiru ma liiruguma ko borom xam-xam yi léeg nga dégg nit ku baax ko ko wax loolu nag su defee dañuy rafet njortu rek na xëy na ñëkkul ne ñoom dañ koo gis waaye loolu moom ci sama tont bii may waaj def mooy awma ci lu ma leer waaye dégg na ay boroom xam-xam ci senegal ñu ko wax ñoo xam ne ñooña tabarkàlla xam naa ci ñoom jikko ju rafet wallahu aalamu mu dee ñaareelu laaju mbokk mi mu ne dafa am ku ñëw jox ko ab yax di ko ko daggloo mu dagg ko ba noppi ndikate kooka dajay tux waaw loolu moom doo ci am benn bakkaar waaye nag du tee nga jéggulu sa borom xamal ko ne ko lii da mm, euh, Euh, maanaa wax wax maanaam tuub laa bëgg a wax suñ boroom xam na lépp laataa muy euh, alima kulla shay'in xabla kaw kawnihi kon dutee nga tuub yàlla moom xam na ne jubluwoo ci woon dimbali ci lu bon ndax suñ borom nee na wala taawanu ala al ithmi wal udwan bu leen ku ñëw di bëgg def lu bon bëgga tux bu ko daggal ab yax bu ko jëndali cigarette bu ko wan fa ñuy naane bu ko wan nangam ba mu bari dégg nga comme nag yow da nga xamoo woon lu mu jublu mu noppi def ca lu xaraam kooka doo ci am benn bàkkaar du tee nag nga jéggalu suñ borom subhanahu wa taala mu gën a baax wallahu aalamu bismillah mu dee laaju mbokk mi ci tënk muy laaj koo xam ne day xëy di liggéey waaye waxtu wi muy jóg day fekk julli jotagut ndax mën naa julli ca waxtu wa jotagut déedéet julli ca waxtu jotagut kenn mënu ko benn na la jaamu yàlla jaral nga toog ba julli ba noppi doo ko génn wala bu fekkee am nga ngànt lu ci ëpp alali adduna doo nga ko waral mooy ab liggéey bëgg naa liggéey nangam wala sama tardé dañ may wax nangam nga xam ne daal patron bi moom ñimewoo tardé mukk heure bi mu la jox ñimewoo koo tardé bu doon xaaju guddi ngay ñëw sax da nga ñëw waaye yàlla mi mi la bind jox la ay heure julli moom moom sa yoon ñëw ci su ma neexee faraxe ko jàll maanaam programme yàlla man sama yoon ñëw ci programme sama liggéey lay xalaat maanaam suñ borom mi la euh, suba heure bii lañ koy julli tisbaar heure bii moom ñeme ngaa yëkkati sànni programme am fële ah man daal garaawut waaye sa patron bi ngay liggéeyal te mu wax ne la ñëwal trois heures de matin ku ci teg une minute naa la dàq wala nangam kenn du yàq programme am ndax lan ndax alali àdduna loolu nag mooy doxful imaan ngëm yàlla gi moo saxatul ci ñun moo tax wa taxsaw na naasa wallaahu axaqu an taxsaahu la yàlla wax yonante bi ah dangay ragal nit ñee bàyyi fi yàlla xanaa yàlla moo gënoon a yey nga di bàyyi xel lu tax nga respecté patron bi bi lay liggéeyloo te respecté oo yàlla mi la tegal heure yi patron bi dalaa tegal heure yàlla tegal la heure nga dammate programme yàlla gis nga mbokk mi ngi laaj léegi heure yàlla bi est ce que mën naa koo def nii waaw est ce que mën naa koo def te judagut wala est ce que mën naa dajale julli ba guddi ma julli leen li muy tekki mooy kee nga gën a warmaal <laughs> fi la xaqiqa saxaaba yi dañ daan xeex ci yoonu yàlla di sànnante ay xeej di sànnante ay fet bu julli jotee kenn du leen ko jéggal kenn du leen wax da ngeen a bàyyi ba àgg ko déedéet dañ laan julli leen loolu la ñu tuddee salaatul xawf yow nag defoo dara liggéey rek ngay def kese kese liggéey wuti alal adduna ngay def kee da doon yëkkati baatub yàlla moom saxaaba bi léeg-léeg ñu nekk ci weeru koor yonent bi ne ku ci mën a woor na ci boole woor ñu wor waaw bu dee saxaaba bi moom jéggaluñ ko mu nekk ci toolu xare ngir yëkkati lislaam ànd ak yonent bi salaa salaam te bu julli jotee ñu ne ko fay faawu da ngay julli yow mi jóg di wuti alali adduna kes kese kese lu tax nga nangu nga bëgg ñu <laughs> jéggal la julli ak di bëgg a yàq programme yàlla ngir programme doomu aadama la taa'ata li maxluuqin fi ma'siyatil xaaliq kenn du bëgg lu neex nit ba yàq programme suñ borom wala di xëtt ndigalam kon nag benn nga toog ba julli jot nga julli doog a dem incha allah wala boog bu fekkee ne la ngay defi dafa doon ngant ngànt nag bu ko waxee waxuñu la sa loo xam ne sa bakkan dong la ngànt ci misaal docteur bi dañ koo woo ne am na ab malade bu ñëw mënta xaar kooko day jekk day dem su boobaa nag benn bu julli jotee ñaara mën a am mooy mu xam ne dinaa dem ba àgg ca hôpital ba wala dinaa dem ba àgg ca fa ma jëm te waxtu wi du jeex bu dee suba te jant bi du fenk jant bi du génn su boobaa kon day xaar ba àgg daal di gaaw julli wala boog mu ne man su ma xaaree ba àgg waxtu wi dana jeex te mënumaa toog ba julli ba noppi loola yàlla la koy seedeel maanaam mbokk mii di laaj yàlla moo xam yàlla lay jël témoin bu fekkee mën naa seedeel yàlla digganteem ak yàlla yàlla xam na li xew ne man kat ba julli suba su ma ko defee du baax te yàlla xam na loola su diggante ak yàlla la su boobaa te bu bu nee dana damay xaar ba wàcc oto bi wala wàcc avion bi waxtu wi day jeex ñu ne ko kon julli ci oto bi jàppal yóbbaaleel am jàpp boo duggee ci bu julli jotee nga liqaam incha allah nga xool na nga mënee nga jullee noona wallahu alam bisimilah bu dee laaju mbokk mu baax mi neen dañuy wax ne ab jaam azaga waru ko muy laaj nag lu waral loola ah waral loola mooy asaka kiñ ko sant mooy ki am te ab jaam moom amul dara dañ koo moom moom mi boppam sax dañ koo moom moom amul dara amul sax boppam ca jamonoy jaam di am maanaam boo jëndee sab jaam ca jamono yooya jàmm bi même bu demee liggéeyal kenn koo ko fay ko sax lam lam lañ ko fay yow borom jàmm bi yaa ko moom kon moom amul milk yi amul benn milk amul moomeel te asaka ki ko sant mooy ki am ki nga xam ne am na dara ba lam am ëpp ko wala lam am na yaatu na ñu ne ko jox ci sa mbokki jullit ñi nga dimbali leen ci yàlla fay la ci tuyaaba xuz min amwalihim sadaqa wala boog min amwalihim ni ko war si di jànge sadaqa tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim nga ñaanal leen nag foofa salli ñaan lay fiire waaye fiirut ak julli baatub salli daa bëri ay maanaa daa maanaa loolu gis nga foofa salli wa salli alayhim nanga leen ñaanal am na fu muy firee ta asalawaatuka taamuruka dégg nga ca yonent yàlla Shuayb ndax sa diine ji foofa salaat diine diine lay tekki foofa bari na ay maanaa wax laa kulli xaal loolu yitteelu ñu li ñu yitteelu ci laaj bi rek mooy ab jaam daa amut ndax moo moomul dara nee naa la jëmmi boppam ji moomu ko bu neexoon borom léegi mu jaay ko wallahu aalam bisimilah waaleykum salaam wa rahmatullah mu dee laaju mbokk mi mu ne booy julli ñëw ci mbooloo mi fekk imaam toog di taaya taaya yu mujj nooy def xanaa da ngay taxaw yéene kabar daal di toog tàmbalee taaya bu imam sëlmalee nga jóg ne allahu akbar doo yëkkati say loxo nag <laughs> ak bari ñu koy def bari ñu koy def loolu sax ndeysaan doo yëkk yëkkati say loxo yëkkati loxo kàbbar armal nga koy def te def nga ko ba noppi doo amul liqaam ndax liqaam bala ngaa dugg ci julli gi te dugg nga ci julli gi ba noppi bu imaam sëlmal da ngay jóg rek daal ne allahu akbar daal di jullee na nga war a jullee nag bu dee ñeent rakk la nga julli ñeent rakk bu dee ñaar rakk maanaam daal mel ne ànd àndoog mbooloo rek booy julli yow dongo xum a kaptadi baatu wasalaata kaptadi tax nañu bari defe na da ngay liqaam ndax nee na da ngay tàmbali sag julli ku nekk ci julli nu muy liqaamee <laughs> ñàkk dégg kon noonu ngay def da rek daal di kàbbar daal di jullee war a jullee bu doon yow dong wallahu taala alam bisimilah mu dee laaju mbokk mi muy laaj ku woor ndax sañ na lido waaw bu lido de li muy tekki rek mooy woor na ci saaxir waaye wóorut ci baatin maanaam woor ba noppi dem kart wala damay damay dem dàq koor damay dem ca géej ga damay passe temps loolu bu ko defee mooy woor na nii ci kaw waaye nag yonent bi salaa salaam nee na kooram googa xiifal la kooku day greffe de faim jaamu yàlla dañuy bëgg mu ànd ak ma yi taxoon suñ borom di ko farataal laallakum tattaquun wóor leen woor gi jubluma ci ngeen bàyyi lekk bàyyi naan dem di lido dem di dàq koor déedéet li ma leen ci bëggal mooy daa am ragal yàlla gu mu bëgg ngeen am ko ragal yàlla gi mooy lan mooy seen cër yépp na wooraale ba dañoo bëgg ci koor gi nga jàngale ci bàyyi fo léegi nag yow ci koor gi nga di ci jànge fo saxee dañoo bëggoon ci koor gi bu koor gi jeexee entraînement bi ñu lay defal lañu tudde ab lël <laughs> léeg ñu jël ay jàngalekat wut ñu mën a forme ay formateur yu dëgër ñu tëj jàngalekat yi ci ak kër wala ci benn barab di leen jàngal secret jàngale ngir ñu gën a mën a aay luñ bëgg ci loolu mooy dañoo bëgg jàngalkat yi bu ñu fa jógee gën a aay gën a mën a jàngal xale yi gën a am pédagogie nga xam ne bu ñu jàngalee liñ jàngale day dugg ci bopp nit ñi léegi jàngalkat bi ñu yóbbu ko foofu di ko entraînement moom mu ba àggee nag mu nekk fe fo ba lël bi jeex kooku nu muy yokkoo weeru koor weer la woo xam ne dañoo bëgg boo daa jàng alxuraan sax nga yokk ko boo daa jàng isib jàngal ñaar isib ñett bu dee da nga daa saraxe ab dërëm yokk ko téeméer dañuy bëgg mu yokk léegi na yow nga dugg ci koor gi di wàññi ko mooy lan jël sa temps toog ci ay lido werante léeg-léeg saaga léeg nangam yàq ci sa temps bu loo xam ne amul njariñ is rubba saimin maa al jamaa laysa lahu fihi siwal majaa bare na koo xam ne woor na ànd ak mbooloo mi mooy lekkut naanut ba dog kooku day xiifal rek du am ca koor ga dara ndax la taxoon kóoru jóg da koo defut woor ba noppi di foo di carte di lido kooku mu amul benn njariñ wallahu aalamu bu ñaareel laaj mbokk mi mu ne kuy julli ndax mën nga caa jàng ñaari saar ginnaaw fatiha tontu li mooy waaw booy julli bu la neexee jàng xulxoo ba mu jeex nga jàng falaxe ba mu jeex loola ayut rawatina bu dee naafila waaye daal dagan na wallahu aalam bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk mi laaj koo xam ne dafa mel mu def accident wala mu gaañu ba mënta laal ndox mu ne mu am ay bor wala boog mën mu ne mënta julli moom mi laaj moo wax loola mu ne nga xam ne mënta julli mënta laal ndox nga xam ne mënta julli ba jële ci ay bor yu bari bor yu mat ñaari weer muy laaj boo koy fay nu mu koy fayee ah, laaj bi dese naa leer bu baax a baax dese naa leer ndax mënta julli lu muy tekki lu mu bëgg a wax ci mënta julli mënta julli mën naa julli man moom moo defee ne mënta julli wala moom moo jàpp ne eh, tabaarakaala amul pexe moom jullee waaye axa kay mën naa julli te daa waroon a julli nag xëy na ñàkk xam kee tax waaye kon da ci am bàkkaar kon war naa jég bu fekkee lii mu wax la def war naa jéggulu yàlla ndax benn war naa julli moom far force da war a julli asolaatu laa tasxut julli du rot julli du la wàcc mukk boo gaañoo say loxo am fu dagg wala nangam mënoo laal ndox dangay laaj boroom xam-xam yi waaye doo toog tegale ñaar weer bañ a julli kooku day da ciy am bakkaar kon war naa tuub ñu ngay ñaan suñu borom subhaanahu mu jéggal ko te boolem jéggal ñu ñëpp ndax bu fekkee xamoo da ngay laaj benn nga xam bu fekkoon ne xam na kon ndax dana jàng bunt bi ñuy jàngalee al masxu alal jabira maanaam boo gaañoo bu fekkee da am ay blessure mënoo laal ndox nooy def. daj ñu ngi koy jàngale ci téere kon benn nga jàng wala jëngoo nga laaj waaye waaye jëngoo laajoo faat lu mat we ñaari weer nga tegal ko faat ci ay julli kooku bakkaar la kon nag euh, sëñ Tuubaa man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsuhu abada wa zalam ku yow yaa alak sa bopp yaa tooñ sa bopp kon gaañu naa war naa julli li sama xel war a njëkk dem mooy ah, man war naa julli léegi nu may def benn ma jàng alhamdulilah wala jànguma ma dem ca boroom xam-xam ba ne ko man damaa gaañu nu may jullee mu wax la kon kooko juum na njuumte lu rëy bu fekkee sa loxo yi wala sa tànk wala sa yaram da cee gaañu ba mënoo laal ndox da ngay tiim waaye doo toog bañ julli boo toogee bañ a julli da nga ci am bàkkaar yu bari dangay tiim te bala ngaa tiim sax dañuy xool gaañu gaañu yi fu mu nekk ci yow daa bari ay tafaasil am na nu ñuy xoolee gaañu gaañu dañ naan la yow kat mën ngaa jàpp waaye sa bopp bi mënta laal ndox kon da ngay jàpp sa cër yëpp ba mu des bopp bi wala ñu ne sa ñaari tànk yi ci la gaañu gaañu bi nekk ñu ne kon da ngay jàpp ba mu des ñaari tànk yi nga nga masaa ko wala nga tiimal ko daa bari ay la bu fekkoon dem na ba sa yaram bi yëpp xam nañ ne mënoo cee laal ndox nga ne li ëpp sa cër yi dafa am gaañu gaañu ñun la demal ci tiim waay doo kon mën naa julli. moom moo jàpp ne mënta julli ci xelam rek kon daa waroon a julli kooku daa waroon heure bu julli jotee mu jël ñaari loxo wut suuf teg ko ci suuf si raay xar kanamam tegaat ci ci suuf si raay loxoom ba ci conc bi raay loxo bi ba ci bi mu jóg julli kon juum na juumte lu rëy incha allah kon loolu moo ci jiitu la ca tegu nag mooy léegi xamut laajut def na njuumte lu rëy ba am na ña bor boo xam ne ñaari weer la nu mu koy fayee ni mu koy fay mooy ni mu ko lebee woon rek <laughs> ni mu ko lebee woon noonu la ko def incha allah mooy heure bu amee heure bu jullee waxtu waxtoom ba noppi rek na fas yéenee fay ci misaal bu jullee suba na ca teg juróomi suba bu ko manee bu ko mënu mu teg ci ñett wala la man ci misaal dem nga ci jàkka ja wala yaa ngi sa kër julli nga suba ba sëlmal neel fa yéene naa fay nag suba ñaari weer yee ma woon fas yéene naa cee fay juróomi fan. nooy fay juróomi fan yi nooy fay juróomi fan yi maanaa su ma jullee suba ba sëlmal nga xam ne kon julli naa sama farata damay jugaat daal ne fas yéene fas yéene naa fay juróomi fan daal di julli suba julli tisbaar julli takkusaan julli timis julli gee daal ne alhamdulilah bu tisbaar jotee su ma sëlmalee tisbaar daal di julli suba da xool waxtu ba nga njëkkoon a faat nag ca ngay tàmbale bu dee tisbaar kon tisbaar ngay tàmbale bu dee gee gee ngay tàmbale boo jullee tisbaar daan defaat noonu julli juróomi julli boo jullee tëkkusaan def ko boo bis bi bu jeexee fay nga juróomi fan juróomi fan fay fay nga ko boo ci tegee beneen bis fay nga fukki fan loolu boo ko gisee boo ko defee day gaaw lool kon daal julli goo julli rek fayal juróomi julli yu wër déedéet doo nekku ne da ngay julli suba naan fay naa benn suba fay naa ñaari suba déedéet ndax julli gi da nga leen war a tegale da fay suba tisbaar tëkkusaan timis gee tisbaar nga def lool takkusaan timis gee lépp nga def loola kon juróomi fan lay doon subaa noonu ko koy rek bala yàgg defe naa balaa man fukki fan wala nangam rek say ñaari weer yi day daal di day daal di jeex incha allahu rabbi wallahu taala alamu sawaaba bu dee ñaareelu laaju mbokk mi mu ne li yonent santaane bu nit boo déggee noddukat bay noddu ngay wax la muy wax mu ne bu dee da nekk foo xam ne nodd yee dafa bari noddu ku daanu rek geneen jóg waaw su ko defee da topp genn rek ngir yéene jëfandikoo sunna si yonante bi bu bu booba jeexee te fekk nga am ay yitte nag nga continuer nekk ca yitte ya ah boo ko mënee nag nga xam ne yow defoo dara wax dëgg yàlla booy waxit waxi caaxaan da ngay wax wala yeneen kooka nag moom nga toppandoo nodd ga moo gën am na ci borom xam-xam ñoo xam ne dañu wax ne moom nodd goo dégg faaw loolu mooy ndigal li <laughs> kon bu fekkee nit ki dafa am yitte nga xam ne mënta ñàkk wax ngir ay mbir kon na topp genn bu jëfandikoo sunna si nag mu daal di topp ay yitteem incha allahu rabbi waaye bu fekkee defoo dara mel ne man xanaa waxi caaxaan nag ngay wax dëgg yàlla kooku bu doon fukki nodd laat nga toog di ko toppandoo tuyaaba rek la ndax tuyaaba nga ciy yokk loolu du la wàññi dara dalay yokk rek wallahu aalam